wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mbok julit yi ginaaw bi ñu sante borom bi wa taala di musli si moom suñuy ñaawtee fi jëf waye di sakku ci mom mu jéggal ñu suñu bakkar di seede ni képp ko yalla jubal kenn mënu la wa waye képp ko fi foda njubug yalla gi fo dem cànkuti nga fay fekk ñoo ngi seede suñu sang suñu yonent ki mag ci ñun mo yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam. ñoo ngi dëggalit di wax ne yonent dootul am ginnaawam ndax moom mooy yonent bi mu gis yonent yi yàlla dootul tànn kenn di ko yónni muy yor garaatu yonent wala ñu koy sax takkal aaya yi nga xam ne moom la yàlla wax si yonent bi te jagleel ko ko ñu koy wax keneen ndax loolu bokk na si liy génn nit ki si lislaam jamono bu gëmee ni am na beneen yonent rek mooy moom léegi bokkatul si diine lislaam léegi moom feneen la bokk fa mu bokk nag kenn xamu ko ñoo ngi leen di ñaanal di ñaanal ki nga xam ne moom mooy borom kër gi nga xam ne lii moom moo ko jiite di ñaanal ki nga xam ne it mooy sunu euh, technicien bi di suñu rakk di Chérif yal na yàlla dolli ko man-man waaye yal na yàlla dolli wér borom kër gi muy suñu mbokk Alhaji Mansour mbay kon ginnaaw loolu ñoo ngi ñëw nag si sunu dars bi nga xam ne Moy ñuy wax ci walu julli ginaaw bi ñu paree si njàpp pare si tiim benn bu ci nek ñu leeral ay faratam ak ay sunnam ak ay té nak ñoo ngi ñew si julli julli nak moy bop l'islam moy bop mbir mi kon té yowmal qiyam képp ko xamni ni dekk nga julli la jëk xol ci yow su julli wéré rek sa lepp day bax lu top ci ginnaawam waye su julli baaxul leneen man ti def ak lu mu reey reey reey yalla du ko xoolati kon war nañu xam kon julli tay nak ñoo ngi ñëw si babu shuruti salati maanaam buntu bi nga xamne mo ñu dugal si charti julli charti julli moy condition yi il faut mu mat nga mëna julli condition yi su matul do mëna julli lolu moy ay charte mu ne wali salaati shuruutu wujubin wa shuruutu sixatin mu ne julli nag am na charte yoo xam ne nii moom lañuy ñuy wax shuruutu wujubin mooy sart yi nga xam ne day daje julli war si yow ak sart yi nga xam ne day daje julli gi soog a wér ñaar yooyu nag bokkuñ charte yi il foog mu daje si yow bu bu dajee si yow julli war na si yow léegi nag julli war na la kon war ngaa julli léegi nag julli googu pour mu wér. am na it yeneen charte yoo xam ne nii il faut mu daje si pour julli gi soo jullee mu wér mooy julli gi baax mu ne charte yi nga xam ne moom mooy yii tax julli war si yow muy surutu wujubin fa xamsatun juróom la kon nga bàyyi si xel surutu wujubiha charte yi nga xam ne mooy waral julli nga def ko fa xamsatun juróom la juróom yooyu nag bàyyi si xel mooy yii képp ku mu tënk rek julli war na la juróom yooyu nag bi ci jëkk mooy al islaam lislaam mooy nga nekk jullit kon boo nee jullit nga si lislaam nga juddoo wala nga lislaam dab la bu boobaa julli war na la boo ne julli waru la nag bokkutoo si lislaam wal buluuxu ak nga dem ba majeur maanaam ki nga xam ne xale la majeuragul kooku julli warul si moom waaye dinañ ko ko digal nag pour yaree ko ko li tax ñu ni julli warul si moom mooy diggante bi boobu majeurul yëpp bu julliwul yàlla du ko bindal bàkkaar waaye dañ ko koy digal nag di ko si yar pour mu miin ko waaye bis bu demee nag ba majeur muy góor wala muy jigéen julli war na ko bu waxtu wa jotee su ko deful am na bàkkaar bu rëy mu ne beneen bi ci des mooy wal aqlu ak xel mooy ku ànd xelam kon ki nga xam ne moom àndul ak xelam xel mi daa manqué kooku moom julli waru ko ndax buy julli du xam lu muy wax ndax ku àndul ak sam xel la ngay wax doo ko xamati kon képp ku àndul ak xelam rek ak lépp loo xam ne nii moo la teqaleek sam xel rek bu boobaa waxtu woowu julli waru la mu ne wa duxulul waxti ak duggu waxtu wi maanaam ngay julli bala ngaa julli dangay fekk waxtu wi dugg waaye nga jiitu waxtu wi waxtu wi duggagul nga ni da julli bu boobaa julli googu du nekk lu war kon juróom yi ñu la wax bàyyi si xel bi ci jëkk mooy lislaam ñaareel bi mooy albuluuxu mooy nga majeur ñetteel bi mooy wal aqlu nga am xel ñeenteel bi mooy dugg si waxtu wi mooy waxtu wi jot beneen bi juróomeel bi mooy wa buluugu daawati nabi sallallahu alayhi wa woote yeneen bi yëgsi na si yow maanaam saayu yu lislaam yëgsee ci yow nga yëg ne lislaam am na bu woote boobu yëgsee si yow ba nga nangu woote boobu bu boobaa yow julli daf la war kon juróom yooyu mooy juróom yi nga xam ne ku ko boole rek julli war na la juróom yooyu nag ku ko boole leneen loo manti wax ne julli waru la bu boobaa ay wax yeneen nga yox waaye du diine doom adama mënu la koo teggil kenn mënu laa gàddul julli kenn mënu laa garanti ni yow bul julli teggil naa la ko loolu moom benn doomu aadama yàlla mayu ko ko yàlla lu mu mayul yonent bi du ko may kenn loolu nañ ci bàyyi xel yàlla mayul yonent bi ni ko yow kat fi mu ne nii yow seetal diw nga teggil ko julli ni ko moom waruta julli loolu yàlla mayu ko yonent bi kon mayu ko kenn kon juróom ñii ñu leen tuddal daal mooy lii nga xam ne mooy warteefu julli ku mu daje si yow nag julli war na la léegi kon ñu ñëw si juróom nga xam ne nag mooy tax julli gi wér mu ne wa amma shurutu sixatiha julli dafa am juróom yu tax yooyu tax muy wér nag moom moom lañ leen di bëgg a limal juróom yooyu moom fa sittatu juróom benn la kon gis nga bële juróom la lii tax julli war la lii tax julli gi wér nag juróom benn la juróom benn yooyu bi ci jëkk mooy yii tax mu wér tahaaratul xadasi wa tahaaratul xabasi mooy laabug xadas ak laabug xabas laabug xadas nag jàngoon nañ ko si laxdar yi baamtuwaat nañ ko it bi ñuy tàmbali asmaawiya moo tax laabu xadas buñ ci taxaw mooy rek loo xam ne nii yëg nga ni moo toj sa njàpp loolu mooy xadas lan mooy xabas mooy li ànd ak yow mooy yëre bi na laab kook xabas la sa yaram bi bu si sobee taqee danga koy raxas loolu laabu xabas la place bi ngay jullee na lab koku lab ko xabas la kon li nga xam ne génneewul ci yow te dafa and ak yow lolu moy xabas moy kon yeri bi bu amé sobe bo ci jullee du wér fi ngay jullee su amé sobe bo ci jullee du wér bu la sobe taxé lu melni ni saw la wala sobe tax sa kaw yaram dang koy raxas ba lolu set nga soga a julli kon labu xabas moom mooy li si jëkk wastiqbaalul xibla ak jublu xibla maanaam booy julli te jublu woo xibla julli gi du wér il faut nga jublu jublu xibla xibla nag mooy kaaba gi adduna bi yépp kaaba gi la ñuy dàkk moom mooy xibla bi naka noonu sitrul awra say awra daal di muuru bu dee jigéen léppam day muuru ba mu des xar kanamam ak ñaari ténqam bu dee julli même sax ndëg gi tankam sax waruta feñ julli gi wër bu dee nak mom moom li commencé ci jumbox bi ba ci bëti oom yi bu ñu sàngoo bu boba julli gi dana wër bu tégué nak yéré ci kaw nak bu boba nak loolu ngëneel la loolu day gëna yok yiwam waaye bokku na likoy wëral tarkul kalaam yi wax bo xasse ba ni allahu akbar waratoo wax leneen lu bokul ci julli gi bo waxe benen wax rek sa julli gogu yakuna wa tarkul af'alil kasira waaye nga bayit ay yëngatu yu bari manam nga kabar ba pare leg leg nga am loof jël fi leg leg nga wokkatu ci ginaa manam yëngatu yi dal bari na ba léegi yow dalatoo nek to ko xamni ni yow léegi ci yemo nga lolu bu bare ci julli rek julli gi day yaq kon gis ngeen charte yi moy tax julli war la waye charte yi ma mujjé tuddu moy tax julli gi wër moy da ngay am laab ci toj aksi khabas nak nonu da ngay jublu qibla nak nonu sa yaram dang koy sutural moy sa awra du feñ nak non da ngay bayyi wax ci bir julli gi waye da ngay bayyi ay jëf yu bari yo xamni ni yëngatu lay indi bu boba jurom yi nak moy julli moy li wëral julli ben bo ci bayyi nak ci jurom yoyu julli gi legi wëratul bu boba da ngay wat yalla ñu yalla may dégg top wallahu a'lam. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما